dal Nokia dal tonnerre moo koy dal incha rabbi man maa ko laaj maa koy jël maa koy duma maa koy daan si kàttanu yàlla. walaay di nga xam ne góor nga ko saxal. dinaa la duma daan la. boo xeexee ma duma la boo bëree ma daan la. damaa daan Nokia daan tonnerre te yow laa ciy teg incha allahu rabbi. bii mooy sa dernier dugub. su ma paree si yow continuer sama liste des na ñeneen a ñeneen. yaa taxaw wax lii. waaw bu jour waa na nga taxaw rek dëggal li nga wax. li nga xam ne lépp dëgg la. maam sa maa ngi lay ziar. maa ngi lay dellu ziar Diaw Fara maa ngi lay ziar bu wér a wér. maa ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. Bécaye nekk xale jëm ci combat ki ma xamante ne moom mooy Alliance Birame nan nga gisee maanaam état de forme Bécaye avant waaw avant tout maa ngi nuyu waale Mass bu baax borom SBT Média ah maa ngi koy nuyu bu baax di ko sant waaw Bécaye moom wax dëgg yàlla xale la boo xam ne dañoo am ci moom yaakaar xale la boo xamante ni wax dëgg yàlla ko fonk entraînement la. Bécaye chaque jour dañuy nekk salle tey heure bi salle la ma waroon fekk mais lu ma jàppoon dama ko bàyyi pour ñëwal ko ci bisam bi di ko ci ñaanal yàlla may ko ndam lu kawe njortam ndax xam naa ne bu dee liggéey rek mooy may ndam incha allahu rabi naam ndam parce que xale bu nangoo joxe boppam la xale bu neex àndal liggéeyal la wax dëgg yàlla du tricher te lépp lu mu war a da koy def ba mu jeex te tamit làmb loolu la fay wane mooy fulla la Bécaye di bëree a bëreel donc ñu won ma combat bi seetaan naa alliance bi rek gis naa ay combat am kooku a moo ko xaw a mag carrière mais loolu yëpp du dara parce que làmb te ay garab la ci kaw lay fekkante di ko ñaanal daal yàlla defal ko ndam te am naa ci yaakaar bu baax parce liggéey na lu ko war a may ndam incha allah ci bis maanaam soo ko doon maanaam moytuloo dara ci alliance lan doon. non xale la ñaari xale lañ dinañ ko conseillé daal xamal ko li nekk ci ginnaam yëpp dañoo am moom yaakaar kon dafa war a a jox bëree ci fulla ak fayda ak jom te lool la ñuy ànd ak moom te loolu lay yóbbu foofu incha allah ba yàlla defal ko ci ndam. adversaire bi seeti nañ ko mais neen da koy duma de. non Bécaye du Bécaye du xalewu kenn ci biir géew mun na micro yi mun na tàkk nag mu wax loolu mais Bécaye mi ak moroomam ñun dañuy tëdd nelaw yàlla moo fay des mais moroomam humilier ko du am parce que liñ koy digal yëpp mi ngi koy def waaw bu waree dem géej mi ngi dem géej su waree ñëw saal day ñëw saal. bu waree dem defi musculation tamit day def musculation su waree def boxe da koy def kon tiituñu ko ak benn góor ci géew waaw. ñu jugee foofu ñëw ci combat Papa ak ki xam moom mooy Siteu ku xam xam sa diggante ki xam moom mooy Papa Sow mu bëre ba pare am ca lam tey am déclaré ne day bàyyi bëre tey ban jàngat nga ma ci defal en tant que ku jege Papa Sow. waaw bi mooy mooy moom ñun bañ nekkee xale ba léegi moom la ñuy àndal te aussi tamit ñun yaakaar nañ xam nañ ko bu baax a baax moom nitu jom la nitu fulla la nitu fayda la. te aussi tamit wax dëgg yàlla Papa Sow képp ku seetaan carrière xam ne du mbër moo xamante tey mbër mu tàppel la wala mbër mu ragal la parce que ñun combat am yëpp ñun ñoo ànd ak moom tey nag ñun doon toppee si ginnaam rek la ñuy toppee si ginnaam ba tey bu kon waaw waaw bàyyi na bëre donc man wax dëgg yàlla dimanche si suba bi mooy xëy di dem làmb laa ñaan yàlla loolu bu ko yàlla mayee ndam mu continuer bu ko yàlla xañee nag mu arrêté. mais ñu bari da euh, ñu bari nee nañ da doon bëriwaale ak li nga xam moom la daan na ci bàyyi ma njoon nag daan na ci bàyyi ma njoon mais après blessure boobu euh, dafa dafa dafa dafa gën a aggravé wu ci diggante bi. waaw blessure la bëree mais Siteu yàlla moo ko may ndam ci bis boobu comme Papa Sow aussi tamit mënoon na ko daan waaw loolu la. waaw sant bu baax jaaraama maa ngi lay ziar bu baax seen loolu da ngaa ñëw benn fan daw rek xëbal ma demal sa yoon. alaaji boo jigoo maa ngi lay siyaar waaw maa ngi lay siyaar ne maa ngi lay siyaar di siyaar seen waa bi di siyaar ñëpp di siyaar si cameraman noo gisee maanaam Bécaye muy sa rakk di sa doom yaay. waaw Bécaye moom chaque jour moom si liggéey la nekk moom day évoluer chaque jour ndax li mu gëm la Bécaye day daan tey noppalu gi benn fan dem entraîné dem liggéey te loolu xam nga jom ak fit ak fulla moo la koy may kase loolu kase la. waaw macha allah macha di ñaan suñu borom may ñu kase. xam nga ki baax Aliou Diop xam naa bu baax ndax seetaan nañ ay xam nañ ñu muy bëree. bu ñu toll nii suñu borom rek la ñuy ñaan mu may ñu ndam waaw incha allah yàlla. est-ce que tey am na loo koy moytuloo ci alliance. da ngay amul lu mu koy moytuloo si benn mbër wax ma la alliance kese de. daanaan lay bëri. barki Seydina Mouhamed naanaan na su feebaree kan ma koy faj naan su feebaree naanaan la koy faj te alliance biram ñun duñ ko may dara te lu ñu may ñun jël ndax da ngay xale wu ndaw demagul fenn. mais est-ce que tey bu utiliser expérience am est-ce que du sonal da ngay. xam nga dañ naan l'expérience face à la jeunesse. Bécaye xale la xale boo xam ne buñ sol yàpp mag ndax si ay mag la woon maanaam ay mag ñoo ko yoroon ay xale yoruñu ko ku nekk si ginnaaw ku nekkoon si ginnaaw Ndongo Lo ku nekkoon si ginnaaw Djigo ñoom Bas ñoom Diop la serment xamal ne kooku bëri boo mën di indil wa jaaxal la demee nag. looy côté mobilisation wa léegi wu ñu ba dëgg la làmb ñoom xamuñu ko woon ndax dund buñ doon dund la waaye léegi dañoo gëm làmb. dañoo gëm làmb te xam ne instant yi dafa bokk si làmb te kaa dindi ndax roi des arènes fii yeewoo muy Modou Xarañ Lo kon xam nga dafa bokk force kenn kaa génne si làmb waaw loolu la waaw ok. sant yàlla. mais leer nga de. waaw waaw bokkuma ak booy nag damay sangu léegi. wala moo ne. ah. wala parcelle moo ne. parcelle la neex. barke yàlla. mais ngaa di sa rakk jëm ci bés combat ma alliance. nan ngeen koy maanaam waajalee. ah dara da ko ñaanal ndam rek boobu sérieux la wax dëgg yàlla ba am benn problème champion la na entraînement dëggal na ay mbaram te boobu kuul la kenn du ko jaxase kenn wax dëgg yàlla boobu da ko ñaanal ndam rek moom moom su dee moom moom ndaanaan la quoi wax dëgg. xam nga ki muy bëri. bon boobu moom xam naa ko yu bëri waaye boobu la barke alxuraan. est-ce que am na looy moo di a Aliou ah boobu moom mot loo moo lu naka respecté rek. barke yàlla bu wax dàq bëri. billahi bu wax dàq Bécaye daan ko suñu bëree Bécaye daan ko barke Serigne Bamba. mais kontaan bi gisuma dox la maa la gën a kontaan. dimbali leen maas une minute rek. maa leen jox. ah kay. dal journée contre alliance nan ngeen koy waaj. waaw euh, Bécaye euh, pare na nu pare ànd waa parcelle. waa Grand Médine ànd ak waa 18. xam nga préparé nañ ko ni ko war a préparé liñ koy ñaanal bu demee na def li nga xam ne moom la moom la liggéey moo loolu yàlla suturaal ko may ko ndam lu rëy rëy rëy Idriss Sa Ndiambour xam nga alliance. alliance xam naa ko xamul làmb nii rek. waaw ndaanaa la mais Bécaye kenn tamit kenn du moom daanaka doomu am la <laughs> waaw Bécaye wax dëgg yàlla pare na ni mu war a paree waaw kenn du ko wax mun na ko dàq mun na ko ëpp lépp mais moo ko ëpp doole moo ko ëpp bëre. non amul lu bégaay di Modou. boo gisee ci lu mu jugee. bégaay boo gisee ci lu mu jugee. moo mën a wow fuuf te moo dafa ñëw foxal si yàlla. yàlla ko yàlla may ndam daal. loolu moo ëpp solo quoi. waaw waaw maa ngi ci jàmm baax a baax. doom yaay békaay am combat ki am moom mooy alliance noonu ngeen koy waaj. waaw ñu ngi koy waaj bu baax yàgg nañu koy doog a yeggali rek fi ne dañoo toll ci yeggali ko ay finition rek moo des ay finition ndaw moo mais fi ne nii pare nañu bu yàgg. waaw pare nañu bu yàgg Bécaye sax. alliance non non amul lu ñuy moytu ci moom. non bëri ci ñun la fekk baax ñun dañoo mën a bëre. parce que sëñ Tuubaa Mbàkke dañoo mën a bëre. ci suñu gànnaaw la ñuy roy arburi loolu lu mu def moom lu mu deful baaxut ci moom la ñuy roy parce que sëñ Tuubaa Mbàkke dañoo mën a bëre nañu jàpp ñu jàpp rek ba yàlla ñëw yàlla baax na ñu ngi entraîné di teel a tëdd di nelaw waaw bàyyi yu bëri parce que sëñ Tuubaa ndax lam kontaan nañu bu baax a baax. sant gërëm yàlla yaa ngi noos. nan nga gisee état de waaw macha allah Bécaye moom yàgg na si quoi depuis bu mu jógee combat am ba léegi bàyyi ko moo ci entraînement yi moom mu laa mujj teeloon sax moom pare na bu yàgg day mottali nii rek. xam nga ki ngeen di bëre. non kooku instant yii nii daa daa daa réer quoi. xam nañ ne ndaanaan mais daa réer xam nga xale bu nekk ci compétition. waaw daa perte repère quoi pour mu ñëw instant yii foog mu bëriwaat bëriwaat bëriwaat pour mu mun a ñëw. instant nii daru ci quoi daa waroon a jël koo ne moo gën a sedd mais Bécaye instant nii xale bu nekk si yoon la quoi te waa parcelle dañu am ci moom yaakaar trop te daa war a dem te du kii moo koy téye quoi. mais yow ci Jackson nga jógee. waaw ci Jackson laa jógee waaw. fan nga jëm. instant maa ngi xaar rek ñoo may wàcc yenn combat yi affaire yooyu la ak yeneen gars ñoo ngi fi man daal maa ngi nii pare naa pour bëre ak ñëpp képp koo ne sama naataango la maa ngi fi ku ma ñëw waaw nee na sama xarit. loolu borom dëgg loolu dafa neex. mais waaye nii rek bilaay. non waaj comme ni daan waajee rek xaw na yokk tuuti nag. xaw na yokk tuuti. waaw booy moom comme d'habitude rek barke alxuraanu karim. yéen a ngi bëree ak daan non bégaay ñun loolu mis nañ si moom. bégaay man dama jàpp ne la bëreegul sax barke Seydina Muhammad. bilaay boo ko yóbbuwoon loo koy li ma koy moytuloo comme ni ñu koy waxee rek comme d'habitude rek moom bu dalee rek na dal rek jaru muy yaa de mais bégaay saa su jàppee mbabat ba léegi ñoo ngi xam nañ ko baax barke yàlla yàlla defal jàmm rek. fan moom da bëgg nañ mobilisation bi gën a yokku waaw boo moom premier combat la yóbbu douze gaar mais bii nii barke sëñ naa moom dañoo bëgg def noo xam ne dañ naan booy bi mooy kan barke alxuraan kan parce que il est temps combat boo xam ne il est temps mu génn la quoi àdduna bi yëpp ko moo moom ñu ngi liggéey man sama liggéey laay bàyyi bu amee combat jaral na ma ñu dàq ma barke Seydina Muhammad non loolu du jëf billaay walaay ñu ñu war a bëreel xam nañ barke alxuraan kam ñoom ñooy teggi rek mais yàlla baax na billaay walaay dala mais kii du woon sax suñu adversaire barke Seydina Muhammad billaay bëgg mais nii nga def waaw waaw nii laa def non mais li ngeen def ko gën a baax ñëw ci bis bi rek nan ngeen di waajee waaw pare nañ lépp moom lu war a pare ndax laa mu dóor lépp la waaj nañ lépp lu war a waaj ànd ak sunuy mbokk di xaar la suur si la 19 yàlla may ñu ndam. mais est-ce que xam nga ki ngeen xam nañ ko bu baax mais Bécaye de mais Bécaye Bécaye moo ko gën a doon daanaan Bécaye contact naak façon bu ne xoolal fii nii façon bi fi nekk ñëpp a ngi fi. fii boo soxlaa luur am na fi lese am na fi loo soxla lu nekk mi ngi fi kon loolu moom mënuñu jaaxal. bilaa non aw ma lu ma koy moytu lool lim daa bëree du ci bàyyi dara dem jàpp daan dem ñibbi. jaajëf. fay bu wér a wér nga ñooy taxale rek <laughs> ak sëñ Touba. li nga bëree la sa diggante kàddu gi. waaw lu ñu si sant ku mel ni Père Birame Dia lu ñu bëree suñu grand ñoom agogo man sama waa sonatal gars yi si lañ koy jëlee sa xam-xam bi yëpp waaw ñoom ñuy tette rek di ñu teg si piste waaw di leen bëgg a ñu fekk fii ci open sa diggante ak Bécaye. waaw Bécaye sama boy la sama lépp la Bécaye maa ko doon takkal sër di ko di ko yóbbu muy bëree waaw ba benn jour mu xëy na ma ma bëgg dem igri ñoom jigo ma ne ko demal foofu ñoom jigo ñu baax la ñoom nongoloo noonu la ñu xaw a maag moom xaw a tuuti rek waaw mais ba léegi saa amee combat fa may woo ne ma kii laa jël ma ne ko naas jëlal waaw di ko ñaanal ndam ko waaw parce que moom tamit ku yaru la waaw wóolu nañ ko si bëre wóolu nañ ko si lépp di wax alliance biram nag mu ngi naan ay booy ak lii am na xale bu saf sap waaw nan nga gisee état de forme waaw suñu xel dal na si moom parce que moom loo gis si yaram bi rek xamal na doole la ñun ñoo ak ñoom ñu ak ñoom Modou boo xoolee ñoo bokk yaram waaw ñu lu ñu am si yaram rek doora na waaw xel dal na daal. di ko ñaanal yàlla tey am na loo koy moytuloo ci alliance. lu ma koy moytuloo loolu. la. waaw ku mun a bëre la mais pili fort ak fort ñooy bëre. waaw di ñaanal Bécaye ndam di ko wax combat bi dal rek lañ ko si kese la. da koy duma. Elias du duma kenn da ngay kenn dañuy dañuy ñëw dox sa maayan bu ko waxee mu ne du affaire nga ñëw teg affaire rek gëree lamb nekk affaire rek gëree lamb damiyee la da ngay teg pion yi wala arrangé nga xool foo teg naxante ba daan waaw di wax bégaay bu mu nelaw si loolu waaw. yow nga daan xale bu nekk ci yoon. instant fan nga teg sa bët. waaw man daan naa xale bu nekk si yoon di wax gannaaw yi nañu may saas ak bàyyi. kan waxal. ku mel ni ay Tidiane Faye bu lan saar nañu may saas ay kéwél maa ngi moom combat la na ñëw ñu bëre parce que sëñ Touba Mbacké man foofu laa teg sama bët Modou Dia bu Yoff ñooñu ñoon laa soxla waaw grand dañoo war a may sens parce que ñoom dañ leen may sens ñun tool. combat amateur yi la amateur yi ko bëgg moom mooy ten defal man pare naa pour ñëpp man laamu du yàqoo si man. Kaw Gourdin lu ñuul loo gis àdduna këriñ la man bokkuma ak booy yooyu waaw. su fi dalee na xam ne fu mu dal baaxul. jërëjëf. na naka leer yi. naka 18. waaw 18 la ngi nii rek passé la ngi nii rek gis nan nga gisee maanaam état de forme Bécaye. waaw Bécaye mu ngi si forme mu ngi macha allah di ko ñaanal ndam rek si kàddu Seydina Mohamed xam nga mu def noonu def daan rek incha allah. xam nga ki muy bëri waaw waaw xam naa ko nii nii rek. waaw ndaanaan la nag. ndaanaan la moom. la koy wax ci kaw. waaw ndaanaan la moom mais ñu ngi ñaanal yàlla may ko ndam quoi si kàddu Seydina. na lu ngeen moytu ci alliance. non non amul warul warul doon bëri ñëw jàpp ko non loolu waxu mbër la xam nga guerre moom booy dem ku nekk da ngay xas-xas loo mais boo demee si géew bi da nga xam ne nga fay fekk quoi mais moom Bécaye moom na waajal lépp rek waaw te waajal na lépp pare na lépp. mais yow foo toll gëj nañ la gis nga. waaw ah, ñooñu ñuy gaa di waaj rek boo ba léegi gaa mu ñu jox lamb xam nga dañuy wax nii ba nga yaakaar ne day taxaw xam nga dem ba si biir dellu avance bi mooy loolu. adversaire bi mais man. nekk amuñu ko ñi fi nekk ñoo ñoom kenn du leen jël nañ ma leen jox ma bëri ñoom bëri ku kan waaw mais ay bëri na bëri na non ay saa boo xoolee yéen na boo xool ñu ne wax. ma mooy noonu xam nga koo ma moom lamb la mais dañ fiy toog naan kii du jël seen kii seen avance day taxawal day def noonu dañoo ñu bëre ma may ko sens. à part ça. même carrière tim ñu nga wax loolu day tos tere bi nag ñëppay daw ma moom. waaw ah, keneen ak keneen même booy sëyee kii ku ci daan soxla naa la ku daan ak ku daanu yëpp ñëw ma bëre ak yow. waaw kontaan nañ ci. si yow nee na jàmm